jërë ngeen jëf waa Parcelles Assainies jërëjëf waa unité 10 jërëjëf génération originale à sa tête Gueye ñu ngi leen di sant di sant imam ak suñu kilifa yi ñu fi fekk di sant surtout la jeunesse dama bëgg rek nga xam ne je suis très satisfait parce que j'ai remarqué que Gueye Original est encadré par la jeunesse des Parcelles Assainies. Gueye, l'original est porté par la jeunesse des Parcelles Assainies góor ak jigéen ñëpp ci biir et élection yi ñu jëm dama tàmm di wax ne li ñu intéressé ci élection yi mooy dañuy xool li gën ci commune bi dañuy xool ki gën ci commune bi Gueye l'original ne serait waxuma sax financement yi nga xam ne yaa ngi koy def jëme ci jigéen ñi te ku jàppale jigéen jàppale nga kër gi mais boo rombee jigéen ñi jëm ci suñu doom yi tout tànk yi nga def opération xarfal def lël ñu jël lu toll ci mille cinq cent xale xarafal leen Guèye vous êtes en train d'encadrer de future leaders vous êtes en train d'encadrer de futurs père de famille loolu ku ko defal njaboot desee la too ko dara parce que ki la xarafalal sa doom ma ngi koy waajalal ëllëgam xëy na mënoon naa yem moom ci njabootam waaye jàpp na ne njaboot ku koy jàppale ci doomam ngay jaar 1500 gone yooyu ak seeni woy waa kër seeni papa seeni yaay ak ñëpp ñi taq ci njaboot gi ñooñu kenn mënatu la ci fay yool bi nga ciy wut yal na la ko suñu borom séddale def ko ci sa njaboot ba nga yëg ko waaye dañuy wax ne nit dafa war a amal njariñ fa mu dëkk et loolu yaa ngi ci loolu je encourage waa parcelle am nañu ci yow yaakaar yaakaar yaakaar woowu waa parcelle am ci yow fexeel ba bul tas seen yaakaar te biir na ma ne man engagement bi nga am waa parcelle dinañu xam ne tànn nañu doomu parcelle tànn nañu ku bëgg waa parcelle taamu nañu ku am yéene ci parcelle parce que nag li may wax mooy dëkk ci dëkk bi juddoo ci dëkk bi bokk ci ñuy defar dëkk bi moo ko gën et loolu yaa ngi ci li ma fi gis dal na xel nekkoon ci ay activité à Touba moo tax ñu guddee waaye jàpp leen ne rek dafa am espoir bu ñu am ci parcelle Assainies et espoir boobu yow da nga ñëw dooleel ko moo tax ma gëm ne yuuxu dina jib fu ñu ko foogewu moo tax ma lay wax ne dinañu ko dabu parce que dañuy waajal takkusaanu ndakaaru takkusaanu ndakaaru yooyu ay tournée yu ñuy def ci biir ndakaaru te jàppal ne Parcelles Assainies dana fi saf tànk lool dinañu ànd ak yow dinañu dem ci nit ñi dina dinañu dem saafonteeg njaboot yi fekk leen seen biir kër parce que que dañuy lancer opération déglu waa Dakar déglu waa Dakar te danañu déglu waa Parcelles Assainies parce que nag nit ki gox bi ñi nekk ci commune bi boo leen di defal danga leen di déglu ba xam li ñu bëgg ngir boo nekkee ci bopp réew mi walla bopp commune bi nga mën a saafara seeni tawat kon jàppal ne opération déglu waa Dakar déglu waa Sénégal déglu Parcelles Assainies danañu ko tàmbali fii ak saanu ndakaaru parce que saanu ndakaaru moom la ñuy wër gox yépp fu ci nekk ñu dem fa waxtaan ak ñoom je vous encourage vous avez tous mes encouragements et incha allah le au soir du 22 janvier 2022 di ngeen gis ne la grande coalition avec Gueye l'original dinañu gagner mairie Parcelles Assainies vive la génération originale vive la coalition Gëm sa bopp vive Gueye original jërëjëf